to the breakfast show, it's of course the, uh, the, the entertainment segment, and of course you, you know how it goes uh, with Lingaji, and of course there is uh, this this this powerful, beautiful, and handsome Kilulane Oyoko, this artist in the studio, and shortly you'll be hearing from him. But let me def rek mooy ñu bàyyi uh, Lingaji mu welcome this des des des des artistes ma maa gis nga fu ma génnee. waaw non dafa ma ne parce que bëgguma gars yi xam kan la <laughs> moo tax I have to use the word handsome I have to use the word beautiful. have to powerful su ko defee gars yi xalaat ne cepe bu nice la. wala ñu ne góor bu rafet la. wala ñu ne giant la kii xam naa njool la punkal la wala <laughs> am ñu am ñu toog sax naan mbaaru ab tumune la. <laughs> yéen a xam ne yooyu ñoom. yow yaa wax loolu. naa la boole ak Daddy ah, ah, ah, Boston. I just want to keep. Daddy are you saying that Daddy Boston. naa la boole ak are you saying that Daddy Boston tugg na la. non non non non non you say. <laughs> mun naa am gars yi foog na tungu ne la nga ne ma naa hmm. la boole ak Daddy Daddy suma waay la. why would la. Ah, <laughs> euh, balaa ñoo continuer. waaw ma nuyu suñu nga xam ne ñu mm-hmm. ngi follow this program the breakfast show all the ah, time. good morning to you. Mm-hmm. Euh, di leen di nuyu ku nekk foo fu waay ma ne ne foo toog rek maa ngi sukk di la wax ne asalaamualeykum ci nu mu gën a sellee. Mm. ok before we go further um, dañu am fi benn artiste bi nga xam ne dafa kii dafa yëngal Gambia bi daal dafa bëri rëg-rëg xam nga dafa xarañ lool ragalu dara tiitut ragal dara. lu ko neex tey rek mu ragal nag. lu ko lu ko neex wax. tey rek mu ragal ndey non man ki ma fi indi man ah. ma mi sax indi koo xam ne fii sax dafa ragal. non talk less about ki ma fi indi. am na loo xam ne su ma ko ko laajee mu ragal. non su dee ragal nekkul ci moom dina leer. non non non hmm. xam naa ne du ko ragal. Hmm. so jaariyatu let's go with the style. ñu welcome suñ artist bi nga xam ne mooy boroom Super Kanja mun a nga ne. Hmm. <laughs> kenn du juddu. sol mbuba <laughs> ay waay daf may neex that's real aka Blacka ah, Shine xam nga so man man I like this outfit Saturday because dama. yaa gën a xam you know. so ban génne. no dañ vibe you know. this ah, black stuff xam nga. <laughs> it's nice being black so. Blackout di la wax ne xam nga nga nuyu sa gars yi ñu laa seetaan fii nii yaa ma gën a xam nu mu fa dee demee. yow man check it man ma ne ko bàyyi ma mayaat leen ko salaamaaleykum Gambia nuyu naa leen yéen ñëpp amal ma miin ak ñu ma fekk si studio bi ñu ñoo seetaan Star TV. Mm-hmm. right now xam nga ñu ngi si kaw si kanam. soo kum naxari rek fasal kanam maa di woyal boole ci xalam eh, wako si kaw wako si kaw la étam <laughs> labalu fas taxut na fa sa raw sta sa kanam ah. mu neexul ma ne booy dalul sa gannaaw ah. ñoo nga sa kanam eh. waa Gambia comme <laughs> seen booy bi la balaaka bu xees <laughs> borom Kanja mu ne supa waroon nga waroon nga ñu wax ne fii ngay feeñee sooy nuyoo <laughs> su ko defee borom bëgg yi ñëw. waaw mu àndaal li nga wax. waaw neex na de xaw ma bu nga xaw ma tam. saf na saf na. <laughs> loolu yëpp moo ko bëggoon a waaj sax waaye dama xam ne comme. Hmm. yoon du MC benn. waaw waaw man de Fatou dafa mel ni comme. dañoo soog a door rek ak yow mii xam nga lu ma mii. fi nga jaar dafa dafa rafet. ñun fu ñoo jëm sax moo raw fii nii. lu si kanam raw jëmbët. ay na soo yooyu yëpp dina am. Mm-hmm. koo dama waroon a àndaatee DJ Hyper waaye not mu ñëw taxawaa laptop bi ma baax fii di yëngal am na sax waaye duñ ko fi waxaangum but as time goes on noo yow dinañ la soxla on that area soo bul wax dara. ok ah, Blacka balaa ñoo dive into ah, li nga xam ne loolu lañ la war a laaj force dañoo njëkk a wax about your music career then ñu continuer si leneen ak leneen ak leneen because xam naa ne tey moom dinañ la laaj lu bari but ah, Blacka lan di woon Blacka mu ñëw njëkka ko xam naa ne man. you already black your skin I like it yeah. it's nice yeah. but lan moo waral grill and the blacker ak kañ nga dooree yow yeah man check it man defatu li nga laajte nii sax foog naa ne ko dee ah. waaw gis nga waaw journaliste yëpp a daw ko a ah. da word blacker moom mooy ne comme <laughs> mhm. waaw blacker mooy pako bu ñuul bi xam nga lu ma mhm. waaye tuddee ma suma booba Blacka sax man. ok man dama toog rek gis internet bi di wax Blacka Blacka Blacka. yeah. yeah because of ñoom suma song bi ma ñëwee ne leen ne. ku juddu doo sol mbuba. te waxoon naa la borom kanja mun a supa booy ma ne leen ne du booy bu xees Batman du leetu mees. foofu ma ngi leen a junjee ne comme. dama leen doon jàngal nii rek wan leen ne comme. man mënumaa ñuul ba si kanam ma xees. soo su ma xeesee rek dafa mel ni dama bleach foofu maa ngi dis comme paako yi nekk di bleach seen yaram. ne nit ku ñuul la mun a nekk tubaab la mun loolu a nekk xam nga lu la waaw tubaab bi su jëlee ñuulal ñuulal sax taxul mu ñuul xam nga lu ma miin soo ñun ñoo dee train di ci soo ma indi leen ne comme ñun paako yi dama bëggoon ñu focus. Mm-hmm. ku nekk sa li nga mel nga mel ko yow boy bu xees bi baa ko mu nekk boy bu xees yow blaaka bi nekkal bu blaaka nekkat sa own style daal waaw soo gars yi toog xam ne lii dafa ñor gars yi tuddee ma Balaka man internet maa ma tuddee Balaka de. yee ma leen ne bàyyi Balaka. ah waaw shout out to me waaw yàlla si boppam ak nit yi. soo maa ngi leen a gërëm ñoom tamit xam nga lu ma mel. Mm-hmm. so welcome nga dat name. dama ko dee over bëggee. Mm-hmm. balaa wala su ma doom yi sister su ma ne dama dee happy. waaw dama dee xam ne tur bi nii comme yàlla moo ma ko indil. Mm-hmm. billaahi wala télé bi ko mosuma ooyee suma boobu Balaka. dama ñëw ne leen man la grill booy tey ma yaasa waat grill grill waaye balaka dafa am xorom. Hmm. te jël naa ko dem naa kenn tëratul balaka mu ko dul. non non non yow rek la naa may balaka. kañ nga a a grill. non grill moom duñ jéeg ak grill. si grill nga dikkaat. waaw bu ko bu jën la woon ndax bu ginaar. wala dix wala si. waaw dix moom weesu nañ ko taay yi xam nga lu ma amee. waaw dañ cop ni ko gars yi laa la laaj laaj ma la si. bu ma la ko daan ruba cop laa la laaj. dama ko daan cop. comment lu boobu nii ah, poti garaaw bi nii. non yow bi nii. bari yàlla njëkk a picc comment lu lu boobu la woon soosi domoda la woon. maa ñoom ay fa ak ñoom ala boy ñoo war a nekk. ban soos ngeen ko daan def. <laughs> yow xamuloo ci lii dara. yow di nga wax man Dix yow yaa ma gën a xam Dix. ah ni nga ko doon defee ma mun na ko wax. ñaata lu foofu nga jël. <laughs> yaa nag tay ñu ngi gërëm supa. tay ñu si kaw ñu ngi si kanam. amul lu ñu ragal si soobee yàlla xam nga. ok yéen la ñoo déglu ngeen la cee ñu ma ne la loo ma aas ma ansa su soobee yàlla. ok baax na. léegi xam naa léegi si moom dina ñëw mhm. si kanam tuuti. Mhm. but ñoo go further am lu ma lay Euh, laajaat si second one bi mooy um, sa supa bi boobu moom hit na all over Gambia here xale yi sax dañ dee over woy loolu noonu like soo demee egg on stage tamit always nit ñi de vibe a lot with that song bu baax a baax so naka nga come up with that song like borom kanja mun a supa ak yooyu noonu affaire bi daal noo ko jaga noo ko jaxasee daal yëpp dafa. nekk on track mm-hmm. noo ko jaxasee noonu na neexee mm-hmm. tamit daal mm-hmm. not only yëfi tooga bi ba wéy bi si boppam dafa neex ba pare interesting ba pare message yi nga nekk di jàllale is very important yow kenn yaa toog xalaat loolu wala lan waaw borom Kanja mën a suba. foofu dama fa a wane ne dama bëggoon a wan Gambia yi ne. comme billahi bu ma nekkee xale di déglu Gambian music su ma diggante ak yàlla la wade. su ma dee déglu ñuy laakantu olof dama dee wane ñii seen olof ñorut dégguñ olof ñii xamuñ nu ñu a tegee lii. so dama jàppoon ne comme billaahi dafa am lu ma leen abaloon rek ñoom ga ñoom rapa yëpp suma diggante yàlla mooy ne comme dama leen abaloon musique bi ngay nekkoon si yee eh? mm-hmm. so moo tax ma ñëwaat jël suma aleel ñu leen ne comme borom kanja mun a suppa mindut ne comme kanja bi kese mooy suppa kii dafa kanja bi mm-hmm. dégg loolu ma la wax de mm-hmm. borom doole xamul nanka waaw borom xama meew ak tii moo mën a waaw borom na <laughs> la sa meew ak tii <laughs> janatak waaw so bu loolu dafa indi ne comme dëgëral dama ñëw wan leen ne comme billaahi mhm. li ma moom laa ñëw pour jël si moo tax ma ne leen ne ku juddu doo sol mbuba waaw waaw loolu moom dëgg la kenn juddu wut téye may so bu leen ma jaay seer ñoom ñu si kaw ñoom ñëpp laa la wax de man oh. nekkuma fi di ay benn artiste disque wala nii man ñoom ñëpp laa téye nii billaay wala télé dugal leen si suma kaasi TV nara la naa naan nii comme right now nii comme naan leen nii naa naanee sax soo mu damay leen ne borom kaasi ok kon mm-hmm. ah, ku juddu doo sol mbuba yow loolu la tekki mm-hmm. yee ok kenn ba pare tamit ku am doo xëy rek nekk ci dafa doo xëy rek ñoo toog Star TV Star TV xëy rek nekk Star TV dëgg la gars dañ garaay ñii di liggéey ñii di ut ay caméraman ba waaw tey yàlla sotal yëpp te yàlla na gën a dem si kanam mm-hmm. am nga lu ma miin so comme lu ma abalee woon laa ñëwoon pour jël rek te yal na ma si yàlla gën a jàppale a suba ma big up te loolu daf ma doy de la su ma yàlla amaguma poche yu diis nag waaye comme loolu daf ma doy waaye dégg loolu ma la ne la suma kër amut moto be yow maa fi gën a seer suma ciri gaale musta of suma kër over neex doy ibil bool bi gis diw bi ndawal bi over seer <laughs> waaye tey dibil bool bi gis kéeg bi bagage yi over saam so xam nga ne ko ñun ñu ngi cobbe suuf ñaa buñ dara I know ah. te doomi aadama da nga war a appreciate like whatever loo munti am on the table be grateful because am na koo xam ne like one thing I like about you mooy you are very grateful like doo even xale yi si mbedd bi sax suñ na tasee blaaka ni blaaka naa yow ñëpp nga jël nga emale. emale yee. ok moo tax ma bëgg leen a may comme vidéo bi vidéo moo tax comme yàlla rek xam tamit. ay na because man ma man foog naa ne bu ma demoon viral rek damaa xëy rek. Mm. am ay wëli ba moto waaw jox ne bi moto nii mu ngi ñëw sax non non non rek. sa first song boo ko génnee da nga ne da koo génnee rek. Mm. nga film dëkk bi yëpp yëg la. waaye loolu ak ndekete bagage yi du loolu. Mm-hmm. yee yuret moo gën tépa tépa yee. dëgg la comme ngat yuret moo gën lu ñëw rek tuuru nii. Mm-hmm. luy toxa mooy. tokk tokk waaw. waaw ku yàgg si teen daal bàq si la. maa ngi wax gaynde tam vidéo bi mu ngi ñëw Kanja mën a supa bi mu ngi si yoon. Eh? billaahi wala télé bis bu ko yàlla namee. Mm. man suma vidéo Kanja bi suma vidéo dama ragal gaay duñ vidéo waat. lu tax. comme lu ma war a wane moo garaaw beneen grille ngay gis. dafa garaaw solo yàlla yee comme dama ko wane xam bi ko maa ngi am xam ne nii ñu ngi ma bëgg a soow ñun tam yal na leen yàlla jàppale. Mm. ñu si ma bàyyaat lip si mu continuer ak yow la jaral moom continuer xam naa ne mu ngi la ko dencal toog di xaar mm-hmm. but uh, ñu delluwaat si beefing side bi uh, grill because um, loolu fu ma jaar la ci ko fii demoon naa si event yi a bi Um, yaa ngi eggoon stage balaa sax maay wax ne yaa ngi eggoon stage yow um, yeneen shows yi nga xam ne yaa ngi fa events yi nga xam ne Gambian artistes ñu ngi perform nga dee nekk on stage yaa leen yaa leen sorry yaa leen dee di leen di wax ne comme dama bëgg a egg stage o ñoom ñoo la dee call or whatever bal naka la fa dee demee non foog naa right now comme approche aguma benn artiste pour mu invite ma sa suuyee ñoom ñoo la dee wax du ko xangalan la du man de mm. kii du man sax kan la óor yàlla ak Mohamed xaw ma kan la sax waaye comme kii reer naa comme giril booy naa dégg du man man sax xaw ma. Hmm. ñoom by force dañ maa invite suñ ma invite dañ soxor bi ko xam nga hmm. ten people ñu ngi ñëw leen fa indi. so bul xeeb ten people noonu yooyu ticket hundred la. dëgg la dama laa laaj wala nii. ten boobu mun na laa thousand dalasi boobu mun naa jënd sa crédit wala mun na laa foyalal sa moto bi nga dem foofu ko soo ñun xeebuñ dara man suma ten fan su ñëwee sa suusa. dama ko bëggee soo yow nekkul na comme da nga war a bañ a invite grill rek grill yàlla moo ko indi taal ko taal bu rafet boo xam ne nii. Mm. ah yéen da ngeen yéen rek gis ko mun loo si dara da ngay gis a a diga right now nag amul lu ko gën a jax maa ngi leen téye barki démb si trip bi ah, dafa ñëw di ma ko wax Sadio Souare sa xarit anyway um, si event A2 bi maa ngi gisoon nga doon wax ne um, yaa ngi téye mic nga egg stage so boo doon a la si diggante bi bu mu jeexee danga ne may wax nga naan Samba Posé su doon cekkete sa musique du fi dox bilaay walaay talaay everybody knows cekkete kan moo ko fi drop in Gambia but why nga ne sudutoon Samba Posé songam bi du dox biir Gambia song bi baaxut wala song bi nu mu fa demee wala dafa oyof wala lan song bi méegu sens wala ban la si man ma mun a understand comment mm-hmm. understand uma time boobu noonu maa ngi la bëggoon a approach waaye ngi doon def suma liggéey waa xamoon naa ne one day or the other dañ ko etu kañ yaa loolu moo nekk ne sécurité bi soo gisee ma wax ko. waaw nekkul nag comme dama leen a tooñ wala dama leen a diste. Mhm. yee man comme ñoom ñoom dafa am lu def si man loo xam ne nii comme tey. Mhm. billaahi wala ay bés suma sëb duñ ko mus a ñu ma waxal noonu yee mooy dafa am benn bu ñu ma teg ñoom. bëgguma tura seen tur sax waaye tey dama nii si kanam. waaw tuuti ñoom man ma fee feeñ. fi gis nii billaahi wala télé si kanam tuuti laa la wax de dama bëgg a man may nekk si face of Star TV yee eh, comme nu fi gars yi di feeñee nii bu ma gis ñaari yi wala anybody mm-hmm. man dama waaye ma laa woon ne comme ñoom mm-hmm. seen fayat yu ñu ma doon fayat moo tax ma leen de gën a mun a woon leen musique munu leen musique billaahi wala télé ndefaatu man su ma waroon ak team any sénégalais artiste mm-hmm. nga xam ne comme ma ma wan la ne comme sénégalais comme musique ñoom waxuma la ne moomuñ ko wala mënuñ ko de. Mm-hmm. waaye ëpp ñu si doole ñun Gambien si. dëgg la ñoom dafa am lu fi jëlee yóbbu ko. ñu toogaat ñun ñi di ko wax wala keneen ak keneen. seen mbalaw buy dëgër tey Sénégal fii la ko gay jëlee. def nañ ko yàlla ak Mohamed. aywa ah, ko dañ ko dégg ay histoires mu leer nañ ñu xam ne comme yéen ñoom seen boppam ñu wax ku mel ni mbéy gi fii su toogee télé wala loolu kon da nga xam ne dëgg la soo dama a mm-hmm. comme attaque si boppam ne moom. Mm-hmm. munut musique si kanami grillé tey comme dama ko tudda dama ko gëj a tudda dama bàyyi comme du ko tudda xam nga. ok yeah because sabotage la sax man tay maa si yeneen. mbaadu waaw comme moom mënut musique billahi luy loolu ay cekete. cekete dafa neex de. waaw dafa neex ba pare waaye comme ma delloo war la ko la dama bëgg ngeen déglu sang bu ba ah. bu ko sax waaji ne xaw ma cool yu bëri na foofu. zere ko kan moo waral coow bi ya xaw ma kan moo ñëw everyday TikTok bi di jax kan moo ñëw internet bi Facebook ma la. maa ngi job si EP bi yaa ngi coow si TikTok bi man damaa job ngir people da ngaa damaa job ngir people bi yow da ngaa waaye kéemoon waaye ñii dañ ma bëgg a. bu ko fi bul ko essayé waaw ma ne ko ne. dakase fecabu ees la dakase moo gën a garaaw cekete duñ ko jànga na nga tey soo mënut na nga ko taxale ku nekk si yoon te bugg a am moom talut ku ko sabote ñu doon xëccoo dañ mboote fii giril mooy bonde da kiy roof ak monte xool ma gis nga bëtu gaynde damay tiréen nañ pompe ma ne ko may sa yaba bul paj dama amut sax sa appétit sista Njaay bul jooj ma ne giril win award bi ñamba kawaas lay dekkil comme e ni UNC xëy su ya nexee reggae dansal musique jarut peace was on Gambia President Tema Tegart hits nii duma seen. bàyyi ma bàyyi lépp mu continuer bëggoon naa xam nag lu mu la def. lu naxari waaye dama bëgg a kii mu lajjee loolu. moo tax ma dafa wala leer xam nga ku nekk move on li mooy. comme que dem ngeen ba ba ba àgg foofu ci waxtaan wi. Mhm. Euh, te olof daf ne comme que yow nga da dégg na olof. Mhm. olof daf ne junju doy na boroom xel. yow junj nga waaye am na ku amul xel pour xelaatee ñun. exactement su mun taxam lan la. Mhm. because understand naa ci ni nga waxee ne dafa am problème liñ ma def. lan liñ la def lan la lan lan moo lan lañ la def ak lan moo waral des des feeling bi nga am towards attaque because soo taxawee nga ne attaque lii attaque nangam attaque nangam on this platform bu ko dañoo xam exactly lan moo xew lan lañ la def. waaw loolu dëgg la loolu dama ko war a leeral. waaw bu ko xam nga lu am na ñoo xam ne ñoo ma dee wane booy seedaalal fàtte attaque. Hmm. yee war naa koo fàtte ba dafa am luñ seexal loo xam ne nii comme. moom def na ko tey ba pare mu koo wax si musique hmm. leer na ma ne billaahi kii man la moo waxal hmm. depuis lu Samba def baj man suma carrière moo a ñor right now de waaye woo attaque ma ne la ñu taxaw si bunti rab bi ñooñu yëpp. Ah. si kanam tuuti du ma waxatee attaque. Ah. yee man damaa rabbe doon ciif ay raba di ma ah. a. waaw dañ concentrate on that. waaye comme moom attaque moom si boppam. Mm. comme moom problème lañ séewoo la woon. yaba booyaam yi génnee jaasi. gaañaamoon na ma la woon. jaasi man problème bu ma dee expérience sax waaye loolu. comme foog ma wax ko ba pare. Mm-hmm. mu am time. yàlla at bi moom suy jeex ma bàyyi mbiram yee. si barke Seydina Mohamed bu ma ko. non ma ko lijantiwaat sax. balaa programme bi jeex sax dinañ la encourage as to what to do mm-hmm. seen diggante but because yow da nga ne du ko tudda ba pare nga tudda ko. wax ko soo foog ñu bëgg xam lan la. waaw la advice uh, towards that waaw waaye ñu bàyyi la nga continuer. waaw mooy loolu rek comme gars yi gis ma gaañ ma ba pare xam nga lu ma miin sa ay booy gaañ ma ba ngeen am fa 3 days nii yow nga ñëwaat suma site nga ne ma booy baaralal kii. ku ñëwaat sa site attaque si boppam attaque dama ko njëkk a dis ana suma xaj bi attaque bëbi zu zu. waaw ne yàlla génn waaye danga. loolu before problème bi la problème bi la. yee comme ñëwaat indil ko loolu noonu after gars yi di ma rëbb xam nga rek booyam yi nii defoon ko crime ñuy tasee si street bi nii ba gars yi def ko digga nag. Mm. ma fële ñii dañoo caaxaan waaye daf leen ko jaral mm. because of kuy gi kuy jël jaasi di ko nit yow mbaam nga waaye doo nit. yow lañ dóor jaasi bi. am éem boobu noonu jël jaasi wala peel laa la wax de nga dóor ko nit. Mm-hmm. yow mbaam nga yow doo nit. Mm-hmm. moo tax firnaaw yow da ngaa di toppa nit rek. yow da ngaa di toppa nit rek da ngaa di toppa si gannaawam. then from there yow still now. Mm. yal na ko yàlla may jaama moom tamit fu mu nekk rek moom waaye billaahi wala etilaay ku def lii. Mm. su ma gisee every day dama dama dee mel ni ko dama ko dee gis place dama dugg place fekk ko fa nekk lu ma ne xam waaye tamit lu ma xam. Mm. ak lu ma denc. moo ëpp loolu noonu. waaw énu ma ko comme. kenn dóor ko jaasi inu ma ko kenn dóor ko paaka inu ma ko billaahi wala kala mm. waaye bëgg naa di ko raw bëgg naa di ko dóor si xaalis bëgg naa di ko mun mu neex ma sax ma xuppa ko suma kaasi tibi comme dama laa war rek comme du dara de ñun mm. mënu ma leen a like comme benn façon like sax léegi mm. comme right now fu ma toll nii all uh, let's go on to something else parce uh, li tax ñu bëgg a ci indi leeral rek mooy xam nga dafa am ah, la lu xew ak nangam léegi léegi leer na understand nañ ne lii la te li gars dañ ko bañ. Mhm. du ko xam nga lu yow. Mhm. yow man soo ma gaañee. nga xam ne man comme kii upcoming artist la rek billaay walaay télé man upcoming artist. bu mhm. ma fi def lu métti. koo xam ne nii def naa la lu métti dama am pour égal la ñëpp feeñ ma ah kii waaye yow da nga ko doon nuba ba yàlla feeñal ko. yàlla feeñal ko si viral bi supa kanja bi daw. ñëpp xam ne yee ma bobi la ñëpp xam lu ko war a laat Star TV QTV laajte Star TV laajte. ma wax. yow nag doon nuba waaye yàlla dafa feeñal yàlla dina gën a feeñal nag. Hmm. li ma laa wax dina gën a leer. waaye comme right now suma ay projet laa war a laa nekk ak ok hmm. comme ma bàyyi la wala. waaw dañ léegi dama bëgg because dama. balaa ngaa proceed am na lu ma bëggaat mu leer bi booy defee loolu ba pare attaque si boppam moo ñëwaat di la wax ne. fàtte dafa ñëw ba suma saay du ma break ma comme mu ngi cool. baalalal ñooñu ma ne ko mu ngi kóol mu ngi fayin dama bëggoon moom tamit mu tontu su fekkee ne waxuma digga mm. su fekkee ne mm-hmm. ah, waaye comme déedéet de su ma ko defoon man mm-hmm. gaay oo ko gaay oo la ooyee ak giril te man taluma fi di daaka sant man soo tul toon suma deret mm-hmm. ah, duma duma fi lijjanti sa mbir. understanding billaay wala ay télé. musique xaalis musique mm. xale. ah óor na ma óor yàlla ak mm. Mohamed sponsor yi suñ duggee laa la wax de yëpp tegu si barke Seydina Mohamed. Mm-hmm. Gambia bu yombaat konka bii nii. ah ñu am bokk ko ñëpp ak jaami yàlla yi. Uh-huh. dafa am seen ñoo dawal ñu ko dawal. Uh-huh. musique xale ay rafet ñuy gëm loolu yëpp ñun dunduñ ko. incha allah waaye maanaam lu war a ñëw bés bu ñëwee. Mm-hmm. nga xam ne comme tamit yëpp dëgg la. waaye tamit suñ bëggoon a mar naan. suñ suñ bëggoon mar poti. Mhm. tey ñu ngi fanaan attaque óor na ma óor yàlla ak Mohamed loolu la si gën a ndaw suñ bëggoon a mar poti ñu ngi fanaan ak benn néeg attaque buñ prene ñu bokk ak benn ay seen ñu leen ame amee ñu ah. suma diggante ak yàlla laa la waaye nanguñ loolu noonu dañ bëgg suñu booy yi ñoom tamit di gis seen boppa I know ok uh, na dama bëgg ñu waaw ñu ñu dem seeti leneen que fi nga toog ñu attaque dina fi toog xaw ma kañ la waaye one day or the other ah, one day or the other so dinañ ko laajaat the same thing mm-hmm. but uh, dama believe yaa ngi wax leen lu important ne leen ñu mm. ko am na soona ñu nekk ci biir tam dañu understand ne loolu is ok da uh, nga leen bëgg di dóor ci xaalis di dóor ci leneen ak leneen ak leneen. Sansey Nice Sansey Nice. bi ok man su ma boobaa sax bëgg naa nga def lu mel noonu keneen def lu mel noonu parce que loolu moo laa yóbbu ci kanam. Mm-hmm, mm-hmm. by doing that then by saying that then mu maa woon ne at least am nga that that that aim. of reaching that milestone but lan nga nekk di def towards achieving that because gis nañ ne uh, boroom kanja mun a uh, super. Mm-hmm. wax ju yàgg la. balaa ngaa judd wax jàng fi bot ni nga ko jëlee ni nga ko raymee doo soo juddoo doo sol mbuba borom kànja mun a suppa ku juddu am yaay am papa raym boobu dafa dafa wonderful bi nga xam ne it was not only a hit in the Gambia a hit in the Gambia but even abroad let's say Senegal for instance because gis naa so many people ñu jël TikTok. Mm-hmm. and then using that song. fan la la yóbbu and how prepared are you pour settle sa bopp nga xam ne xaalis nga leen a dóoree ëllëg waaye du jaasi. mooy comme projet yu ma nekk di xelaat every day yoo xam ne suma ma eewoo every day loolu laa dee mhm. gis moo dee nekk suma booba bi yee yee ñu ne la jaam ak payam ama ama yàlla dogalam yee project et man na ma balaa maa kanja i balaa maa kanja si internet bi sax gars kanja fekk na maa ngi job EP. Mm-hmm. te EP boobu dama ko mujjee launch. ma mm-hmm. dañ ko def listening party. Mm-hmm. ñu yëpp seere nañ ma Club Lights Costa Road. because of after dama leen bëggoon a wan ne man suñu lu ma fa. suma yaay foofu la dëkk suma foofu la dëkk parce ma fa daw dafa bëri trop musique lu ma jaral ma génn fa laaw bijuloo burusu bi waaye bu ma traîner dama leen wan ne léegi dama am pour def EP bi jox leen ko mhm. xam nga lu ma miin soo luñ fa amoon yëpp ñu jël ko dem séedoo ko maire bi séedoo ko booy yee ma ne leen ne jox leen yëpp maire bi xaaf yëpp mu ngi cool lu des yëpp booy nu mu fa demee. bil boo leen laaj ñu fay borom bitig bi suñ ko amee bon sax ñu fay. Mhm. so loolu happen na one time. Mhm. dama bëgg a toog a EP wala album boo xam ne nii billaahi walaahi talaahi seen paak dama koo feesal tëb. allah ma wax ko nii mu mu la. freestyle bi dem viral keneen du ko fi defati maa ngi toogal suma EP su ñoree yëngal dëkk bi big venue lay feesal su jotee fan si fecali giril kese ak mic bi bro fii dara du doyati. Mhm. yee man big venue lay tooga pour mhm. feesal ko. incha allah. jël yëpp jox ko suma mère bi yee afta bugguma tus. yàlla billaahi walaahi talaahi lu si ëpp doole ma jox ko. yàlla loolu ma la wax de at bii nii te te dama la leer sponsor yi ñu ngi taxaw nag comme yee mu ngi cool. ok fayeen waaye dama naan ne comme bro mm-hmm. at bi billahi foog ñu wàccee booy rek maa leen naan ne booy léegi Star TV lu ma leen war a wax parce que suma projet gi suma boppa bi album sax mun naa koo teg amuma time waaye waaye ñu ne ma ne waaye defal ndànk léegi ñu wàccee waat beneen EP mm-hmm. eh, billaahi bugga naa def EP boo xam ne nii si at bi nii sooba ah. yàlla te dinaa ko jéngu xoolal mm-hmm. def ko xoolal bigal si suma meer wi yee man loolu rek laa soxla bi ko Gambia ñun ñun si loolu lañ judd dañ judd gis mu ngi tar ñun luñ am nañ ko jox suñu yaay ñu ngi cool. dëgg la waaye sax lu ma si gën a neex mooy xam nga peccum liir bu neexee dafa fekk ñu ne ndey jaa jàpp ci mbagal yi soo yow moom as far yaa ngi bàkkoo sa yaay um, doomi aadama boo boo gis muy bàkkoo yaayam du dee musa des gannaaw loolu is loolu moom dañ la ko garanti yàlla si boppam moo wax loolu soo uh, ñaata moons lañ war a toog fu mu nekk nii di war a xaar nga daaneel bagage yi fu because nit ñi ñu ngi xiif pour déglu sa musique yow loolu leer na la noo daamut man mi toog fii maa ngi xiif yaakamtee déglu sa su ma songee dama bëggoon tam nee naa dugga si internet bi booy di ma di type grill booy blaaka mm. ngeen déglu suma songi xoolal borom kanjaa mën a supa nga déglu wane ma bi ah nga déglu bañ bañ bugga nga déglu élection bi mhm. ah nga déglu xelal buubu golo bu ma leen indil bi nga tax ne moo tax rapa yi mhm. gaat maa ni attaque yu ko dee gaat xam nga am na rapa yu ko dee gaat tay <laughs> bugguma wax gars xam nañ seen bopp di ma gis di ma bireeg billaahi non maa toog fii di waxantu. maa ngi noo baax na loolu ma leen ma leen <laughs> bu rapa bi daf ma gis di ma bireeg si buubu golo. suma songs yi dafa perfect dama bëgg nga dugal audio maag moo ko fa teg six songs. Mm-hmm. ah billaay ñii du ma seen morom. non déglu naa ko. waaw bot dañu fu mu nekk nii dañu xiif pour nga lonc affaire yi. buubu golo boobu lan moo tax nga fi tax nga foog ne loolu tax gaa yi di def loolu. jox ma ko même ko jox ma ko acapella rek. diggante ko ma rek man nii may solo jarul laaj sax man fu ma juddoo xaalis di tax ma soppi ji ndeke góom góom moom am na solo boy man du ma compete yaatal xëccoo man discipline laa jël def ko ci ko e eh. yow su la neexee daawal moto mënu ma la ñeexee bu ma welo e man lu ma def ñu dóor ma photo masala man du ma ku ndaw e teg ma sa blanche mu wan la kilo boy ku fi gën a rëy ma jox ko loxo yow yow yaa ngi ñaaw kom buubu golo kele bëri wax kom ko cokoco woo ma sa soo yow bëgg ma sa topp tey ma fula laal su ma yëf man naa fi la kopp pop yi gën a waay li ngay def dama ci aay su dee rab duma ci taay kaa ñu dem dinaa la ñus te su loxo du la laal rapa yëpp laa nar a suul pakete si benn night dem seen dëgg di jaale gaay man ak rapa yi seexul xarit wala waay kii lay xamal moo lay jaay looloo tax ma bàyyi gaay job rek teg ko ci raay ñu liñ def rek foog mu nice ndey Fatou mu ngi cool si gaat ma baag fuli rep mbaa duñ ne yaay duma bi parce que doo ki ba di ko jaale waaw moo si beneen bi ma la toj na toj ah. na ba ñoo seen dëj toog di siiw ah. yee because of fii dafa dof de bro fekk yow yaa leen rey su ma booyee sarama ma leen ne kuy àndaa man espégal mbëcc eh. because man su ma boppa ngi espégal mbëcc because <laughs> xam nga gën na mbokka waaye taxul ku ne sa boppa dëgg la yow nga bàyyi man dama yaaga ma suma mbokka yi ma suma xarit yi di kaa ñoom yee because of xarit yooyu ñoo ma gënaloon mbokka waaye tamit mm-hmm. ku nekk ak sa boppa mm-hmm. kon daal li nga wax daal mooy Euh, suma boppam la gënal du bañ. naa la dama leen ko dee wax koo xam ne suñ fa tooloo. da ngaa xam bootee doomam. waaw. ok dama meer la ko si rap ma ne la. <laughs> ndeke xaritoo gën a mbokk. Hmm. waaye taxul ku ne sa bopp. Hmm. dëgër bopp teg si woo nopp yow li la xuri rek moo ma wokk. Hmm. gémmi maa fi yéen ku daw bokkul. so dafa am xam nga lu ma neex si moom he is very direct. Mm-hmm. moom daf dee su ñëwee when it comes to like dealing with your friends or whatever lu mu munti doon. Mm-hmm. xam naa ne they know de yow you are very direct ba pare mm-hmm. suñ dégluwee sa song si. sa wax yi sa yi nga nekk di wax fii ñëpp xam nañ ne comme doo dee seet si dara. but gris ba tey fii ba um, December fu mu nekk nii dama bugg a xaar yow kañ nga koy waajal nga xam naa su fekkee Q City dafa fees. stadium dafa fees. su kañ la loolu man dama ko yàkkamte. te uyuma uyuma si at. uyuma ma ma. non bàyyi ma laajte ko loolu. bul ko waaye tay ma di ko jay bul ko jay laan ko green green pass. non dafa fees. non bul ma gis. daf lay jaay da nga am nii rek lan moo la leer la fees. ma leeral ko. Hmm. waaw kii du du ma ko jay de. waaw joxuma trans. Ah, ok baax na joxuma ko. ba xam nga nit ki loo gis danga koy wax. waaw mu ne tey mu takar naa si. waaw su yeggee si kaw stage. waaw waaw bi nu mu ko dee xam nañ. lan day faru toog fii di jaay nga. bëgg a liggéey rek man jënd nga man am Ah, ah baax na jayuma ko lipsi am just being ma lekk joxuma ma su demee QC dina fees lu ma witness loolu laay wax su demee QC dina fees dafa léegi sponsors <laughs> yi um, yaa ngi am um, any individual wala any company bi nga xam ne ñu ngi sa gannaaw ñu ngi laa baag fu nekk nii dem la jàppale because soo góorgóorloo si musique bi laa wax de mm. te slack loo foo bëgg a aaga di nga fa aaga but you need to work very hard because work hard pays mm. soo defa loo noonu doo fa aaga mm. so moo tax man I see ma ne la star bi by force di nga ko feesa because su fekkee lu nekk si yow yaa ngi ko utilize by force dina fees yow at bi loo bëgga looy ñaan noonu si at bi la moo am bi ko soobee yàlla man tamit billaahi walaahi talaahi mm-hmm. yow dama laa jox time boo xam ne mooy ne comme li nga wax nii dama koo jox time mooy ne ba pare danga ma reetaanloo taaculoo ma yëngal ma <laughs> billaahi dama koo jox time ma la koo booy may ne si ma na ma def mm. ma a xelaat si weeri koor rek ñi e seven songs ay man ma mun a ñëw mais nine <laughs> teg ko kiw siri teg ko xoolal si pag yi mu ne la big venue day laay feesal waxaguma dara jëlaguma déet waaye comme dafa war am si at bii nii si barke Seydina Mohamed te balaa loolu maa ngi woog vidéos yoo xam ne xale nañ ko mun di seetaan rek Kanja yee yeneen yi. Mm. final exemple ku ko paasu demal. second ci plaçage nag bay Kanja yi. ak benn ci nag yooyu. waaw dafa dina ñëw mbaxal may la borom gerte mun a mbaxal. ku am sa gerte bu loora mbaxalal. léegi ñu nekk sa gannaaw at bi Africell mu ngi fine. ok Qcell mu ngi fine yéen seen boppa yéen a ngi fine. dégg loolu lu ma la wax de. ok all right. <laughs> xam nga uh, am na fu ma waxee. non maa ngi la fiil maa la fiil. maa lay wax gars yi def nañ lu rafet ñoom tamit. sure QCell def nañ lu rafet QTV. Mm-hmm. yee Korka def na vidéo after. seetaan naa ko yaa yaa yaa. so lu mel noonu Africell ñoom tamit xam nga lu ma miin. yaa job nañoo man xam nga lu ma miin. yow yóbbu ma si paa bi fële ne de xam nga Sénégambia. defal ma billboard am nuñ defal man xam nga lu ma wax ma ne sax comme grill yaa ngi fine right now tamit the only thing ñun ñu bëgg mooy nga propose anything loo xam ne yow pare nga koo def mm-hmm. si sa carrière ñu jàppale why not waaw propose boobu tamit du mun a du mun a nekk yow grill kese mm-hmm. grill foog nga sa team bi foog always ñoom tam nga leen naa bëgg a déglu moo tax ma dee waxaa ñoom comme xam nga lu ma miin mm-hmm. waaye suñ paree at bii nii looy wax billaahi walaahi xaw ma curiosité xaw ma fende waaye su soobee yàlla ndefatu yàlla na nga fekkee lii. incha allah lu. amiin lu tar lu sound lu baax. Oh, lu oh, tëgg oh, all right Ndeye Ndeye Fatou ma baale ñu tàggatoo ma. because ah. dem dem nañ more than thirty minutes with you. so fi nekk nii si la fi toppee ko fi dog. but hmm. balaa ngay tàggatoo am na lu ma bëgg a ñu clair fu mu nekk nii nga move on. Hmm. because fii ñu bari am na ñoo xam ne jotee nañ fii ñii gaañante ñii ba seen life sax ñu ñàkk ko fa but still da nga bàyyi yëpp mu sedd da nga bàyyi sa diggante digganteeg yàlla and then nga move on fii soo fi jógatee man ma laa advice focus on yourself bu baax a baax and your music career si sa bopp ak the people surrounding you den nga mun a àgg foo bugg a àgg because yii si boppam distraction la bu baax a baax daf la dee try because nit ki lu lu rek neexut. dama passé loolu sax dama ko ak sa emotion si fu nekk nii nga digest everything den nga continuer life goes on daal mm. that's life. dafa xam happen noonu jaala na passé na whether they apologize or not you just move on uh, with your career. ok mm-hmm. ma bàyyi la ñooy wax ak sa boy ñooy nuyu ak yooyu noonu. from there ñu lock up the show waaw comme li mu defaatu wax lay tàggatoo yee mm-hmm. at bii nii dama leen jox insha allah ibi bu sound si barke Seydina Mohamed yee mm-hmm. comme big venue lay feesal su soobee yàlla yee te amul bàyyi te dama bëgg a wax rappay tamit mm-hmm. ne billaahi walaahi talaay su ma dundee yàlla may ma wérgu yaram mm. parce que dama dee seetaan seen awoot yi booy yu passé booy mm-hmm. nekku leen fa woon dañ daan gis ñoom Baye Faba ñoom Mandi Mori xamuñ leen woon mm-hmm. soo yéen tey ngeen fi nekkat yi yéen man tamit dama faa nekka dama ñëw jël ko yëpp su soobee yàlla waxuma la attaque kese de ñoom ñëpp laay jël yee soo ñoom ñëpp yéen ñëpp su soobee yàlla dama leen bëgg a ngeen nekk suma gannaaw maan di ma gaat doon suma ay xam nga lu ma miin <laughs> yee moom no after loolu guard man security <laughs> waaw ok sa boy bi kopp leen gaa ngi toog ala boy hyper yeah comme su ma waree lim damaa juum de team gis ngeen seen boppa yéen ñëpp gis nga ñu ma àndal naa gisagum waaye yéen ñëpp yéen a ngi ci biir waaw ok um, Lipsy di jaajëf Mr Sara and Jacqueline today nekk fii mm. ak yow sababa but thank you for your time because like um, yow fu mu nekk nii even balaa ñoo balaa ma laa indi fii we already friends fu mu nekk nii friends um, da nekk koo xam ne Baay Faal nga man ma doon yaay faal so thank you for accepting my invitation. Mm. ba pare di jaajëf Lipsy jaajëfal Lipsy bu mm. baax a baax. all right thank you very much yow comme que yow yaay Baay Faal bi moom muy yaay faal <laughs> Euh, ma bëgg laa wax rek ne. léegi-léegi mu ne di nga feesal ma a ko doo feesal. wala mm, that's life that's the way it should be. Mm-hmm. parce que expect loo nga ñëw toog fii and then ñu jox la a cup of tea nga naan dallu and then duñ push and pull or whatever. it was just meant uh, to be like that. Mm-hmm. but to be honest you are good. Uh, you You are good and keep it up. Mm-hmm. But tam nala wax lena. Uh, di nga dañ ko baaxoo xamee raapa man maay lii man maay lii just baaku la but bul jël sa boppa foog ne yow you are up there already soo ko defee rek doo def li laa yóbbuwaat feneen si beneen stage understand na loo mun mun mun fe jàppal ne mënuloo xam nga nit ki soo xamee dara dem ci mbooloo di wane ne xam nga mm. ki la gën a xam dina fa toog noppi du wax parce dafaa jàpp ne xam nga mm. waaw soo ñëwee foog ne xam jàpp ne xamuloo te fekk xam nga di ne teg keneen wax sax nga yokk ci li nga xam ne ci loolu la ma wax di nga ci dégg loo xam ne xamuloo ko woon nga yokk ko ci li nga xam. so in uh, as much as xam nga ne yow you are do you are good but bàkkoo ko but believe ne. there is a lot of la de waaye dama bëgg always gaa di. dama bëgg seen xel yi ma faa toog. non non understand naa loolu. understand naa toogal sax ba mu neex la. Ah, toog toogal sax ba mu neex la dina raapay. <laughs> koo mën a toog ci kawam toog ko loolu dafa baaxoo affaire raap moo mel noonu. moo mel noonu nga advice ma la wax nii moom laay jox raapa yooyu nga yow sax attaque la keneen a keneen su fi toogoon sax. non dina fi ñëw because amul kenn ku foo xam ne ni da def ne yow defee ne yow doo defati dara pour move sa bopp to another level. Mm-hmm. Youssou Ndour si boppam FDM were still working so that's what you need to do then su ko nga move to another level we are thanking you very much thank you very much for the place of your company together with uh, Ndeye Fatou Lengi G pour indi la fii nii it's been a pleasure anyway and we're hoping to see you again we thank our beautiful viewers Ndeye Fatou. Euh, yes viewers yi bu baax a baax. lii leen leen amaloon on the table. Mm-hmm. tomorrow incha allah dinañ fi am euh, Poliso. aka mm-hmm. Nyancho dina fi nekk live on Star TV keep it locked. all right thank you very much ah, ñu gërëm Jeynaba bu baax a baax Jeynaba ñaari Jeynaba yi. Mm-hmm. Ah, di gërëm ala di gërëm ñoom ñoom ñoom ñoom. Rohi Jaari ah, ñoom Jaari yetti ñoom Bas bu baax a baax jërë ngeen jëf dinañ jël si waat ak yéen ëllëg for another breakfast show. booy booy booy Travis a ngi déggal moo di nga taay si dëkk bi booy. mooy lan noonu. booy booy booy booy grill ngay toj dëkk bi booy. ay poki booy nga ma. soo dégloo tragam bu ees bi booy dafa over sick booy. ku juddu dox sol mbuba. te waxoon naa la borom kanja mu na supa. booy ku am yaay am papa. Ah. su dul dul ma ni nga xëy rek ma ni dégga. suma kër amut moto booy waaye maa fi gën a seer suma ci ni gaale musta of suma kër over neex waaye billboard bi gis diw bi ndawal bi over seer ay bi foog mu leer gal bi tam fu ko neex mu teer blaka du boy bu xees batman du leetu mees hey suma namoon leetu futi daala leetu lees dama ko jël be defte waaye duma bandi salte kalpe président ma palpe policeman ma teyle ku juddu dox sol mbuba te waxoon naa la borom kanja mun a supa booy ku am yaay am papa ah. su du dul ma niga xëy rek doon ba ma sànni mbal ñu noppa jéen boy taman maa ko waas way tema boyal furno suma boy yaa sawaat jimbo kaani limon jamba ko suma boy i nañ ko naan tey sun garab amu fii feebar bi taa way may ma paas ma dem too suma amut sax ma leb ko giril jaral na ma ko jaama see ci coo so xamut nit ki sori ko xam-xamay tax nga jege ko seen raba suuf ma suli ko sumi ko hey accéléré hita baar bi 5G ma mbokk a fence bi dugga sa kër ma rey mbaam bi booy ma ne sori suma waa ji ñu ma joxoñ lay suuli tel tel tel ma def biir wi tar mbéj ma daaneel la man la sa broda may teysin su ma rabee ngeen kontaan guitare comme ni Jimmy Jackson daf nañ fi freestyle ma mee la wali pa hits am nañ fi ay song bul foog ne yaa ko moom du ma samaas may booy bul tëggale papa ak doom hey booy jox leen ma cër full time coobi maa ko gëm naa ne duma nga way sama moo la tooñ man yàlla laa góom booy taluma pexeb noon man maa ngi job all booy bi am na yoon bro yaa ngi toog all day sa xol moo la tooñ ku mbuba te waxoon naa la borom kanja mën a subaa booy ku am yaay am papa